mbokk yi maa ngi leen di ziar bu baax a baax di santal yàlla bu baax ci sunu jataay bi bi mu nu mayee nu fekkewaat ko di jégul bu baax itam ci yéex gi nu yéex a tàmbali tey jii ak jataay yi nga xam ne moo weesu te amuluñ ko jataay bi wax dëgg yàlla mooy jataay boo xam ne moom bu ma sañoon duma ko du am benn alxames boo xam day romb te duñ ko def noo ngi ñaan yàlla nongul nu ko te bool nu ci fay ngeen ji fay bii weesu noo ngi tolloon ci tariquhum ashratan jaat lawazimuha la budda minha li arbaabil iraadaati fa maqsadun wa huwa ma yufdi ila safarin minha dalilun ka shayqin di futuxaati والزاد وهو التقى منها سلاحهم وهو الوضوء الذي ينفي النجاسات منها السراج بذكر الله جل وعلا منها المطايا بهمات عليات منها العكاز بعجز والحزام لدى أهل الطريقة حزم بالحقيقات فوف لن تولون تموي ki nga xam ne day ab murit ab talibe la budda min ha li as li arbaabil iradaati la sëñ bi wax maanaam ay mbir ngi fukki mbir ngi yoo xam ne mënta ñàkk ci murit te loolu mooy yoon wi maanaam doxub murit bi da am mbir yoo xam ne mën caa ñàkk mbir yooyu nag moom la sëñ bi wax ci bayit yi ba ci jëkk mooy faaw mu amub jubluwaay jubluwaay bi benn la war a doon te mooy jëmmi sun borom tabaraka wa taala fa maqsadun wa huwa ma yufdi ila safarin ndax lam njëkk wax mooy tariqahum qasdu wajhillahi kon jubluwaay benn la war doon mooy jëmmi sun borom tabaraka wa taala waaye itam yoonu yàlla itam yoon la woo xam ni yàgg na ma wax ne yoon wu lëndëm la ndax adduna lépp ak lëndëm la genn la rek moo fi ne mooy leerug sun borom tabaraka wa taala loolu la ibnu atay la sikandari waxoon ca xikam الكون كلها ظلمة كون بلب أغلى نملة لير ويا لرق ما في ما في دك لير الله نور السماوات والأرض يختص برحمته ما يشاء أبن فلم يعني لو كسر بنا وخير نه كوا خم نيال جوخ كوا لير دو أمك لير مك يهدي الله لنوره ما يشاء nga xam ne kon leer gi genn na muy leeruk suñ borom leer sax fukk suñ borom wax ci alxuraan fi ne genn da koy da koy da koy def mufrat lay lay wax maanaam zulumaat ñoo bari ay zulumaat moom waaye nuur moom fukk suñ borom wax ci alxuraan rek genn na genn nuur lay wax amut ay anwar ndax genn leer moo am muy leeruk suñ borom tabaraka wa taala wa man lam yajal illahu lahu nuran waaw loolu la fa ma lahu min nur nuur moom genn la te suñu borom moo ko yor kon leer googu nag moom la murid di wut moo tax aajanab dox dox bi nag aw yoon la woo xam ni kenn mënta xëy rek dem ci suubu ci àgg ca loolu moom moom ku la ko waxee dalay dalay dalay wax wax joo xam ne mënta ne mi ngi mel mosoo dem mosoo dem màkk benn waaye nee na daal jëru ngay ànd ak kenn jëru ngay dugg ci aw jaar jaaral ci yoon bi da nga dem <laughs> yow soo ay mën ngaa dem waaye mën dem ci géej ga mën ngaa dem fu ndax xamoo fu màkk a màkk a féete di sëñ bi maanaam yoonu yàlla noonu demee faaw mu am dalil min ha dalilun ka cheikhin di futuhaat yi maanaam dalil mën ci ñàkk moo tax nit yàlla yàgga wax di digle dalil boobu yi mooy koo xam ni day day ànd ak moom mu di la teete ba nga àgg ci suñu waaye itam ab yóbbal mun ci ñàkk yóbbal bi nag mooy ragal yàlla ragal yàlla mooy yóbbal bi gën a mag ci yóbbal yi yoon woowu boo ci amatu yóbbal da ngay ranka ci yoon bi mooy di nga fande boo bëggee bañ a fande nag da ngay wutub yóbbal inna xayra zaadit ni ko suñu borom waxee mooy at taqwa yóbbal yi nag bi ci gën mooy ragal yàlla waaye nag ba tey ngànnaay mun ca ñàkk ndax booy dox ci àll boo xam ni daa lëndëm te bari yu ci ne ay pakk bari ci xam nga Sëñ Tuubaa waxoon na ci bëy diñu weesu woon rek mooy fa man bi mëh-mëhi tasawu fi nasal mooy tasawu ab mëh-mëh la mëh-mëh mooy mooy mooy li ñuy wax àll boo xam ni dafa maanaam ab gott gott boo xam ni dégg nga dafa fatt taraj bari rap bari pak bari yu ca bo ci boo cay dox soo te yuroo ngànnaay da nga jekkee rek si dégg nga maanaam gayne gaynde taxaw sa kanam xam nga koku faaw nga wara jeblante mom wala nga dox bam yag buki buki mu doy war mi rek nga xane amul solo waye fi ne indi jafe-jafe fi ne ci àll bu dee yow kese and mën a laa mën kar wala nga taxaw bam yag yàgg nga manam jaan mu doy jaan nga xane amul doole sax mom waye bo yorul nga nay xam nga do meuna a mom yëpp nag moo tax ngànnaay mënta ñàkk ngànnaay nag sëñ bi daal na ci yoon wii moom mooy njàpp saxoo njàpp yëpp danañ ci taxawaat incha allah waaye dañ koy wax ni rek eh, ndax njàpp ne na moom ak leer la xam nga te njàpp moo lay musal ci seytaane maanaam yoon wi fi ne ki ci dooge kenn la yoon wee fi ne ki nga xam ne moo ci dooge mooy iblis mu bon moom seytaane ak i sëtam njàpp nag li fi yaa ngi amee njàpp rek fi ne yaa ngi ci kaaraange iblis du du mën a agsi ci yow seytaane du am yoon boo gisee ñuy bëgg booy tëdd sax nga tëddaale na sëñ mag bi yi nga xam ne moom lañuy ñuy wax ci moom te mu wér lool mooy moom njàpp da koo saxoo mooy koo xam ne njàpp koo saxoo moom waaw waxtu wu ne daan nekk ci njàpp njàpp mag ñi dañ ko fonkoon mag ñi ñoom fu seen li ñuy wax njàpp fu mu firikoo rek dañu daal di jàppaat waaye itam àll bu mel noonu itam boo ci dox faw nga abuji làpp làmp ndax la neum xam nga àll mom do am lamp lamp mom bir dekk ba ko am waaw leer ga mom ci dekk ba la ne way li fi go ci dekk ba ab gott ci nga ne gott nak sa way faaw nga lamp ndax fene bu lamp man nga dug ci mbax ndax rab yi dañuy dañuy gas xam nga ci <laughs> ci ci yoon wi man nga tek sa tang japp ne ci suuf nga tek fek ci birum pax ta pax mo fene lu ne <laughs> man na ci nak man nga ci dugal sa tang de nga dara dara ne la katit xam nga lolou motax tax wax ne ab lam mun ci ñak lamb nak moy min hasiraju bi dikrillahi ma saxoo tuddi yalla man tuddi yalla mo doon ñam wi gëna neex ci ab murid khayru taami lil murid saliki dawamu dikri dil jalalil maliki kon tuddi yalla moom murid bi da ko wara saxal eh, ndax moy lamp bi koy leral moy bi leral xolam ah, leru xolam ndax leru xol tuddi yalla rek moo koy def ci ci ci xol mom mom leru gogui waaw ndax tudd yàlla mooy xacc xol li yonte bi wax ne inna al quluba tasda'u kama yasda'u al xadiidu xol yi dañuy dañuy dañuy xumaag ndax fi ne bu fekkee da ngaa yàgg ci jataay yii nii waxtaan yeeg coow leeg xaqataay beeg yooyu noonu sëñ Tuubaa dafa dafa wax ne loolu ngelaw la ci xol day ëpp day leer gi ne ci xol bi di mu fay léegi nag moo tax léeg nga am diir boo xam da ngay delluwaat nag ci yàlla toog def sa zikr tudd yàlla xam-xam sax am na solo waaye xam-xam léeg-léeg werantee xam-xam yi sax ne mën na laa dugal ci mën na mën naa xajamal xol bi fi ne <laughs> leer la waaye xam-xam yi daa wuute werantee xam-xam yi xaw nii mën mën na la dëmal sa xol fi ne yooyu nag boo bëggee mu leer moom benn làmp la mooy mooy mooy tudd yàlla waaye itam yoon wu mel noonu it boo ko bëggee doxal ak sa tànk xam nga du sotti faaw nga war dara boo dee damay tàmbalee fii wuti eh, dégg nga mag damay dox rek bu ko defee moom dina àgg donte xam nga yoon wi sax fi ne maanaam man ngaa bañ a àgg fi gis nañ Cheikh Omar Fouti wax na ne yaakaar ñaar fukki at la aji te booba ay jàppandal am na moo tax yoon wu mel nii nga xam ne ab gott la moom boo ci bëggee jar faaw nga aajee waruwaay mooy sax min hal mataya bi himmaatin waruwaay wi gën a mag nag waaw waruwaay wi gën a mag mooy yitte ju kawe pësteef pësteef sëñ bi mooy mooy mooy waruwaay wi nga xam ne soo ko waree nes tuut mu yóbbu la fu sori ku amul pësteef nag sëñ bi du dem fenn moom mooy kuy dox ak tànkam moom mën naa nekk ci di wër nii rek waaye waaye du sori fene <laughs> moo tax pas-pas ak pësteef mooy lépp nag maanaam mag ñi daa wax dañ daa wax ne pësteef yitte moo moo raw jeesi lañ daa wax yitte moo raw jeesi fi ne tey lépp loo xam ni bëgg nga ko ci àdduna boo ci defee yitte ju kawe faw nga am ko boo ne woon tey ji daal Cheikh Mouhamadou Mountakha bëgg naa ko gis mu jaral la nga xam ne day jaral nga bàyyi seen lépp sa yitte jëpp di gis ko balaa dégg am ñaari fan ñett nga gis ko moom wala boog feek ayu bis ki ko gis moom boo ci defee yitte ju kawe rek ko gis waaw mbiri àdduna yi loolu la loo xam ne bëgg nga ko tamit yitteel la ne boo ca dogoo rek gis nga ñi nga xam ne ital la ñuy bëgg dem mu jaral leen dugg ci gaal yi da ngay dem ba Mauritanie nga dem ba Mauritanie fi ne boo demee àggagoo bu ngay dem ay 600 et quelques kilomètres ñu dem fa nekk fo ay fan di fa liggéeyantu ba dugg ci mën a dugg ci gaal goo xam ne xam nga loolu yitte ji moo leen ci yóbbu yitte ku ko def ci yàlla fi ne da ci am lu kawe <laughs> moo tax yitte mooy waruwaay bi min xel ukaasu waaye nag yoon wi itam aaja na dokk boo xam ne moom nga sukkandikoo waaw aaja na dokk ndax dég yi daa bare yooyu noonu ak yi nga xam ne moo lay kii loo koy faral nga xam nga ab dokk moom mënta ñàkk wax ne moom ngay sukkandikoo dokk boobu nag nee na mooy xajisi xajisi xajisi mooy lott mooy dund ak ñàkk xam ne yow mënoo dara amoo dara xamoo dara itam li yaa ngi jàpp ne xam nga baa jàpp nga man nga baa jàpp nga am nga dara yow demagoo fen moom murit moom murit nag moom murit moom murid moom dëgg-dëgg moom mooy la sëñ ta waxoon taazazu taazazu bi zulli nu mu ko waxee ca ca bayit wa maanaam murid dëgg-dëgg wa wala tajaalul faqra xinaakumu maanaam murid ab faqir la faqir mooy koo xam ni waxuñu nag ku ñàkk adduna waaye faqir mooy koo xam ni daa telu ci lépp nga xam ne nanguwut a gis dara ci boppam nanguwut a gis ne am na dara mbaa mën na dara mbaa xam na dara lu mën a xamit day jàpp ne loolu moom taw feex la jukko suñu borom taw feexal di ko ko xéewale te waxtu ne mën na mën mën mën na ko nong mooy ni ma daa waxtaane fii rek mbooleem kattan yi nga xam ne yaa ngi koy jë yaa ngi koy dund fi ne yëpp fi ne danga koy jëfandikoo rek xamoo noo koy noo koy ndax moomoo ko ndax ba muy ñëw taggu la te buy dem du la taggu man nga yor sa gis bii di gis waaye bis rek man ngay xëy suba ñàkk gis fi ne moom ci bëccëg bi moom xam-xam bi fi ne mën ngaa jàng ba mokkal ko ni jàpp ne ma nga fa waaye nga di tare ka tare waaye mën nga xëy bëgg tari du ñëw mu dem kàttan yëpp noonu la wax jii nuy wax gis nga da ngay ne bëgg ngaa wax rek nga gis ne yaa ngi wax gaa a ngi dégg waaye mën nga xëy bëgg a wax du loolu bari na loolu ñu ñu mi dal ñoo xam ne tey dañuy xëy suba daal liggéey nekk seen digg doole ñëpp di leen naw ak seen xam-xam ak kii ñu jekkee ki am paralysé boo xam ni AVC bi dal leen nga xam dootuñu mën a dañuy laggi moom seen cër yëpp laggi lépp ñu tële ko moo tax kon kattan yooyu doomu aadama da koy jëfandikoo di ko xéwloo waaye du lum sàkk du lum moom du lum fa denc ka ko ko téyel nag mooy sunu borom tabaaraka wa taala mi nga xam ne moo téye lépp yumsiku samawaati wal arda an tazula moo tax du murid nag loolu lay dun nag di dun ñàkk kooku yow loo mën a xam it bul jàpp ne xam nga dara waaw nag lu jafe ki ci gën a kawe nag mooy Cheikh Abdourahmane moom mooy ko xam ne jëmm joo xam ne moom man boo ko xamee ba léegi mënoo toog ak moom ba yëg ne yow sax nga toogal moom <laughs> na moom jëpp jëpput moom ab sëriñ fi ne jëpput ne xam na dara fi ne tey bu du woon ak téere yi mu jàngale fi da nga jàpp ne kii jot a boo gisee jàngkat yi ndaw yi ñëpp dañuy jàpp ne mag ñi jànguñu woon fekk mag ñi dañoo bokkut ak ñoom xam nga fi ne jàngkat ndaw ku ci jàng fi ne buy wax sa buy wax yow sax mu dugal ci arab yoo xam ne wan la ne la <laughs> yaan yi xam nga <laughs> yaan yan bëri nangam indi ay bayit nga xam ne sa waaye jàgg na tuuti Cheikh Abdourahmane mooy ko wax nag mën a wax moom moom bu wax la benn baatu arab wala fi leer nañ lay wax yoo xam ni ci mbaaxu sëñ bi <laughs> xam nga kooku <laughs> mënoo yëg loolu nag sëñ mooy murit nag moom ak murit mooy loolu fi ne maa yii yii nii maanaam yu yu fi yu fi gane la yoo xam ne dëkkutoon fii murit dëgg-dëgg day a eh, ab boo xam ne moom lay dëkkërloo te mooy ajis faqir fi ne yàlla li muy defal nag gaañe dëgg dëgg koo gis yàlla defal koy may daa dund faqra boobu fi nekk innama sadaqaatu lil fuqaraa waaw yàlla xam nga amul lenn loo xam da ngay jëf mu di la fay ngeen di fayante loolu lum lum la lum wax na ko ci alxuraan waaye ci mbaaxam maanaam amut yow loo am ba man koo jox yàlla ba mu lay jox dara moom nga xam ne ngeen jaayante loolu loolu loolu mënoo ko am waaw maanaam sunu wax na ne lebal leen ma man da alladi yuqridu llaaha qardan waaye lebal yàlla loolu bu la ko waxee maanaam ci mbaaxam ak bëgg laa xam nga léeg-léeg nit ki fi ne mi ngi ne ki nga xam ne daa am doom may ko ñaari téeméer wala junni woo kon nag ne ko nag yow sa xaalis bi de moom da nga jël may diw mee doo ko doo doo ma dimbali lebalaat ma ci téeméer xam nga yow lépp moom da xam ne baay bee ko moom ndax moo ko jox waaye bëgg sagal doom ji tax mu ne ko kat yow lebalaat ma ab téeméer xam nga xam nga suñu borom wax na ci alxuraan ne sax alal ci moom <clears throat> yàllaa ko moom alal yëpp yàllaa ko moom yaa maalullaahi maanaam alal ji alal li suñu borom ah, maanaam doomu moomu dara waaw fi ne loo yëngu ba yaakaar ne moo la may rek gis commerçant nangam jàpp ne yaa am dara fekk yow loola nit def na ko wala mu def lu ëpp li nga def te amul li nga am wala xam ne loolu maanaam suñu borom yi wax ne eh, eh, wërsëk yëpp min indillahi noonu ma ko waxee wërsëg yëpp ca suuf ci moom lay bay ko kon jëmmi murit bi daal ak faqr lay doon ra nag buñ ko waxee du waxuñu sa digganteeg adduna wala sa digganteeg doomu aadama yi déedéet waaye aajo wo yàlla ak yitte woo ko ak bañ a gis dara ci sa bopp aajo si boob yi nag moom mënta ñàkk ci koo xam day dox ci yoon wi la ca topp mooy nag <clears throat> mooy looy takk sa ndigg murit day takk ndigg la ba mu dëgër <laughs> wala xisaamu minha al ukaasu bi ajzin wa xisaamu lada ahli tariqati xazmun xazmun dégg nga bil xaqiqati te mooy murit faw mu takk ndiggam maanaam kaala gi doo xëy rek teg ko ci bopp wax na ne kaala bu njëkkee ci bopp bi ca ndigg la mu mujje <laughs> ndax da nga xëy suba sa waay maanaam da ndax ku toog mari murit ma ngi ne daa ne ku toog te sa toog jotagut <laughs> da nga jugaat <laughs> bis dana jug nga jug bis da nga jug jugaat moo tax kaala day dañu bëgg mu njëkk ci ndigg li ba war a dem ca bopp ba nag doog caa dem wala murid nak buy doog a jug kaala moom ci ndigg la lay féete te mooy xidma ci lay ne kaala googi nag nga xam ne moom nga takk ci sa ndigg sëñ bi nee na mooy xasmu ak takku ak takku akuk dogu waaw ya. ya. waaw mag ñi day wax ne yitte moo raw jësi waye nag ak dogu moy taxa a fa nga jëm nit ki dana am pas-pas waye mën dox tuuti tayel da taxaw dogu nak moy tax nga ag mom moy lo mën a gis rek du te du te nga deugar taxaw am na ñoo xam dañ dox ci yoon yalla xey suba gis si Abdourahmane mu neex leen lol ñu tamlu sobu <laughs> waye man nañ ko def say at waye bo jange fi ba agal dem Ndakaaru nga gis ñu sol ay pantalon <laughs> xam nga dugg ci yeneen yoo xam ne dugg ci téléphone yeeg loolu bari na ñoo xam da nga gis ñoo xam ne moom dañu daanaka dañu a àgg ci si yëbdu a mel ne si yëbdu waaye buñu fi jógee ci daara ji des tuut nga gis maanaam moom ndax dañuy jànkonte ak yeneen yoo xam ne leen ëpp doole xam nga si yëbdu ramaan ay maanaam noonu man bi ba léegi ci lii xam ndax a jege juróom fukki at juróom benn fukki at mi xam nga kooku bokkut yow nga bëgg koo def ci ñaari at rek bëgg a àgg fa xam nga mën na <laughs> wata ab dox la boo xam ni doo xëy suba ñen nekk ci bopp ba nga ne naa naaw fekk leen xam lool moom xel nangu ko da ngay dox ni nga mane rek li ñu wax de sëñ Modou Lamine Gueye jëm mooy mu baax ma daanaka wax na lii tee lii tax àgg yet rek la mooy yenn loo attan di doxee na nga mane tey dëgërloo suñu borom te wa taala waaw di doxee nanga nga di yenn loo attan yenn loo tey doxe na nga mane mooy yow nekkal ki nga doon rek bul koppi keneen bul nekk bul jéem a maanaam taxam taxam mus beneen beneen beneen jëm nekkal ki nga doon rek tey dëggal loo yàlla loo man def ko loo mënut nga yéene ko tey dox bu yàggee li ci des dana ñëw kon xas xasmu xasmu boobu nga xam ne mooy azmu rek mënta ñàkk mooy ak takku akuk dogu <coughs> loolu it mooy kaale gi nga xam ne moom la murid bi war a takk ci ci ndiggam waaye nag wa min lawasimiha minhajuha mu amu yoon nag boo amee yooyu yëpp nag te nekkoo ci kaw yoon wi nag xam nga doo dem tey Touba ngi nii nga ne Touba laa bëgg a jëm jëm ci Touba ngi nii ci wetu penk nga yow nga jublu gànnaar wala sow xam nga yow mën ngaa dox xiir nag man ngaa daw ay ta <laughs> te fekk yow saa yi doo doo mos a yow ndax Touba daa nekk ni nga nga jublu yow sow yow moo tax yoon wi da cee mënta ñàkk yoon woowu mënta ñàkk min haajuha waaw waxya shariatu fii bad in wa gaayaati yoon wi nag mooy nekk ci sharia ceeg njëlbeen ba ceeg mujj waaw sharia bañ ko wàcc mukk loolu mooy yoon wa mooy yoon wi mooy minhaaj bi sharia du teqali koog bi mukk waaw sharia du teqali koog murit bi mukk ndax sharia mooy fondement bi xaqiqa dooga a ñëw tege ci kaw boo demee ba tàmbali bâtiment nag ba def sa fondement ba tàmbali nag dégg nga maanaam mu yëkkati mu jëm kaw nga ne naa naa màbbu fondement bi amatuma solo boo màbbee fondement bi lépp ànd daanu ah lépp ànd daanu misaal naa ko fi yaakaar naa ba tàyyi ci escalier yii nii <coughs> nga xam ne moom nga yéeg fi ne. boo demee ba ca escalier ñaar escalier ya mujj nga seen asamaan ne daal fi ne àgg naa léegi naa màbb escalier yi <laughs> boo ko dee saa ci suuf nga jëm <laughs> ci te fi ne lay tax nga génn bâtiment bi escalier yi yéeg ci kaw kaw kaw terrasse moom jalloog asamaan sa mooy faatu wax yaqin wa'bud rabbaka hatta yaatiyakal yaqin kon yoon woow muy sharia jooju mënta ñàkk léeg-léeg nag ci biir nag dox bi nag nga daje gaaw waajoo xam ni ab maji sóob la Madji Zoob mbiram daa gën a compliqué moom wàccut sariya fi ne waaye yow li muy def dalay lay nuru ne day wàcc sariya zahiru shar'i léeg lay juyoon waaw mooy koo xam ni maana yow atte yi nga xam ak norme yi nga xam ak adduna bi nga xam ak li fiy dox ak waaqeex bi moom bukkut ak la muy la muy la muy la muy nattoo fi ne ci misaal waaqeexul amri ak nafsul amri moom la falasifa yi wax ñaar yu bokkuñu xam nga fi ne ndox xam nga day fay ak lakk waaye ndox fi ne day boo càmbaree ba ca biir la ko composé moom ndox mi du dara lu may li ñuy wax hydrogène ak ak ak ak lan li ñuy noyyi ni oxygène yaakaar na lu noon la hydrogène nag moom day tàkk moom sawara la moom te fi ne bu àndeek maanaam fepp yi mu war a àndal ci oxygène mooy mooy indi ndox nga xam day fay ak lakk moom <laughs> boo ne léegi ndox mi sawara la xam waa ji bu la bu la taxawee bëgg laa waatal ne ndox mi sawara la yow da nga wax ne yow saxel neexut da nga da faatu ndox mi ndox nu mu nekk sawara fekk cosaanam sawara moom yi la seet nga leen bëgg a majsu bi nag foofu lay foofu la foofu la foofu lay atte moom léeg ci mbir ma dëgg-dëgg cosaanu mbir mi fekk sariya moom waaqiwul amri lay atte yunte bi da wax ne tey bu bu weer jotee bu koor jotee dégg nga suumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaykum fa akmilu al-iddata thalathina yawman xam nga fi ne tey weer wi mën naa feeñ waaye gisoo ko buñ ko gisul rek bul woor yow kon sharia amri dégg moom yow waaqe bi moom la sariya di di lijjanti xaq majsu bi nag moom nafsul amri ak xaqiqatu mbir bi kooku ci lay dellu moo tax ngeen ngeen wute ay ay ay ay ay delluwaay ak ay mbir moo tax du duñ mën a diggante ñëpp waaye jës bu itam kenn du ci sax jës bu du lu ñuy sax maanaam jës bu itam ña ko am dëgg-dëgg du loo xam ne dañ sax loo xam ne dañ ciy doxe seen sago itam ñaar yëpp am na ci maanaam du ñoo xam ne dox seen sago du loo xam ne dañ ciy sax itam di rek di daanu continuer daanu continuer amul fenn moom daanoo mën naa nekk sax ay secondes yu new wala mu nekk ay minutes wala mu nekk benn bis waaye daanu continuer xam nga loolu loolu loolu moom yombut ña ko def nag ñi nga xam ne ñoo daanu continuer rek ñooñu mooy ñi nga xam ne moom majaasi bi nga xam ne moom borom xam-xam yi yëpp dañuy wax ne ñooñu moom benn doo leen ñaan loo doo sàkku ci ñoom dégg nga ñu dénk la doo leen defub sëriñ waaye doo leen dingan itam ndax la ñuy jëf man yow moom boole leen ñaanloo fi ne lañ lay ñaan rek mën naa nekk seen xaal te seen xaal boobu gënut ci yow ndax xaal boobu gënut xaal bi gën mooy xaalul ambiya yi xaalu ambiya yi mooy xaalul baqa mooy yooyu yëpp mën nekk sa biir nag nga ànd ak moom di dund ci dund gi nag am tawaasun bu mat sëkk loolu mooy xaalul ambiya yi mooy xaalu kummalil awliya yi itam mboolem ñi suñ borom dégg nga tànn ñu jiite turuq yi itam ci xaal boobu lañ nekkoon kon xaal boobu mooy bu gën bee xam nga moom bu lay dab ci yoon wi la rek waaye wërta sax kon charia moom mooy yoon wa <coughs> dégg nga waruf nag bu dee yow kese yaay dox nag mën ngaa dàcc mën ngaa dàcc mën ngaa tàyyel waaye faw nga may ay àndandoo àndandoo ñoo xam ni waruf xatun wa hiya ixwaanun lahum himamun waaw mooy ay ay ay ay yoo xam ni yàlla rek a leen di boole waaye nag ñuy boroomi ñuy boroomi ñuy boroomi yitte itam di borom pësteef na boo àndee waa boo àndee waa joo xam ne danga nga amul pësteef boo àndee waa xam ne amul pësteef moom maanaam la nga amoon ci pësteef ku su néew fi ne da koy dind ci yow pësteef moom day walle pësteef day wàlle ba tax na boo àndeek borom pësteef bu yàggee sa pësteef dolliku boo àndeek boo koo xam ne amul dara ci pësteef nag moom dalay dalay dalay dalay dalay maanaam day sa pëstéef dégg nga da koy seebal di ko seebal di ko seebal ba mu jeex tàkk moo tax ñi ngay def xarit boo gisee sëñ mag bi ba muy fi ne ba muy wax wirdul maaxoos ñam koy jox wirdul maaxoos ñam koy jox dafa bokkoon sart yi mooy ànd ak ahli taatillahi moytu ahli maasiyatillahi ndax ñi ngay def xarit bu fekkee ñoo xam ne tey ñu amul pëstéef lañ di ay ñoo xam dañuy mooy yàlla ñooñu bu yàggee dañ lay yóbbu ci loola waaw innal nu ko waxate innal innal muqaarina bil muqaarani yaqtadi bil muqaarani yaqtadi mi ngoog kon ay àndandoo itam mënta ñàkk waaye nañ nekk nag ahli taatillahi noonu ko sëñ bi waxee waaw te mooy koo xam ne day mooy yàlla moom bul ànd ak moom ku ñàkk positif itam bul ànd ak moom waaw fi mu ne gis nga say xadisu sayidna xudayfa boobu yi nga xam ne imam muslim nettal na ko nga xam ne dafa wax ne moom nun bu nekkee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dañuy dund xaal boo xam ne yéeme na waaye buñ fa jógee rek ba dem ci kër ga foog xale yi xaal bi soppiku bu génne dinaa ko jàmbate yonente bi bi mu ñëwee ci bi muy dem ci yoon wi dajeeg Seydina Abubakar ne ko man day ab naafiq laa xam naa ndax daal xaal ba may yëge ci yonente bi daal bu ma fa jógee daal dem ci kër ga xaal ba day soppiku Seydina Abubakar xamal ko ne ko loolu yi de ñun ñëpp moom lañ yëg léegi nan dem laaj laaj ko yonente bi ba ci àggee yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax leen wax ko ne ko fa walladi nafsu muhammadin bi yadihi law taduumuuna ala ma takunuuna alayhi indi aw inda dikri لسافحتكم الملائكة في الطرقات أو كما قال عليه الصلاة والسلام أو على الفرش itam loolu lépp am na ca mooy dafa gën ci ak dundam moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla dafa gën ci suñu borom mi nga xam ne moo yor ab nosam ni giñ naa ci yàlla day bu ngeen nekk fi man xaal bi ngeen di am ak bu ngeen di def zikr xaal bi ngeen di am dan moo lay xam ne xaalub dégg nga yonente bi nekk ci yonente bi ànd ak waaju baax xaal bi la yóbbu moog xaal bi nga am ci zikr fi ne ñoo ñoo tolloo mu ne ko ñaari xaal yooyu bu ngeen ngeen ci doon sax malay kii dañuy saafuwanteeg yéen digg ba bëccëgum dara kam wala walakin yaa xandala saatan wa saaxa mooy loolu mu ne su sax dangay def fii aw waxtu rek def fee waxtu léeg-léeg nga nekk ci lii waaye léeg nag nga nga dellu nag ceeg gone waxtaan ak ñoom waxtaan waa kër ga dégg nga kon loolu moo tax mënut a ñàkk moom ay gaa yoo xam ni dañ lay dooli positif nga ànd ak ñoom gaa ñooñu nag sëñ bi nee na lahum himamun nañ am yitte nañ am pas-pas am positif am yitte ju kawe yitte ju kawe nag fi ne ci li gën a ñàkk fi ne la bokk nag moom fi ne ni jamono jii nii yitte yi moom daa gën a suufe nit ñu seen yitte jëpp àdduna la bërëb ba gën a yaakaaru nga xam te dañ la wax ne fii moom loo fi ñaan mu am boo demee ay milliards ngay ñaan ak ay kër yu rafet ak dugg fii ak <laughs> am ay place yu kenn xamut yooyu maanaam daa amul solo ci moom maanaam mi ngi mel ne tey ni ma koy misaal lu bare bari njiitum réew mi dalal la nga ne ko kat man kat fi ne sama yitte jëpp mooy daal ñaar fukki dërëm yi gerte daal boo ma ko wutaloon <laughs> xam nga yow njiitu réew mi da lay xeeb xam ne yow xam nga àdduna sépp nag yónte bi da ne moog laafum yoo ñoo tolloo fa suñu borom laa tusaawi janaaxa baxudatin laafum yoo ci boom moo ëpp solo fa suñu borom adduna sépp moo tax yitte murid war a nekk ay la war a am moom mooy wut yàlla moom man lam yurid shay'an siwa mawlaahu idil muridu laa yuridu abadan xayra rida rahmaani maanaam ñaan yi loolu la war a doon waaye ñaani màggal yëpp fi ne ak ñii ñaan loog ñii kii ñëpp gis nga si Abdourahmane boo fa demee gars yi nga xam ne ñoo fay ñaan ñëpp ñii place bi may waaj a <laughs> kër gee nga ne maa ngi ko doon lijjanti ñii Italie jee boobu a dem ay milliards daal yoo xam ne ma ciy liggéeyal sëriñ bi rek ngay dégg loolu nag yitte ji suufee la mu baax mu waxoon na loo xam ni ba maanaam Cheikh dafa baax te firi ko piri mu baax rek waaye fi ne lu war a tiital ñëpp la wax ne murid yi ku fi ñëw gisaguma benn murit bu ñëw fii di mu wax mbiri ëllëg mbiri tey rek lañ mu wax <laughs> ne nag loolu seen xel daa dal ci ëllëg dëgg la maanaam la dafa baax te firi ko loolu firi mu rafet la mooy seen xel moom dal na ci ëllëg waaye nag seen yitte yëpp war a nekk tey rek waaw adduna bu mu war a nekk laa tajaali dunya akbara hammina loolu yonent bi bokk na ci ñaanam adduna war a nekk sa yitte ji gën a moo tax parce dëgg-dëgg nag maanaam yoon wi dëgg-dëgg murit dëgg-dëgg nag ñamee àndal moom na doon borom pësteef ñu am yitte yu kawe ñoo xam ne yàlla rek a leen ñor ak lu jëm ca yàlla ak mbirum sëriñ bi te dëggu ca te loolu wér ci ñoom moo tax sëñ bi teg ci maal wafaa yi bi sidqin waaw bokk ñu ñoo xam ne tey période lañ koy defal amna na ñoo xam bu magal gi ñëwee danañ am positif mom <laughs> danañ am positif danañ sawar ci mbir yaay bu magal gi jeexee ñu lew ñu lew lool tek fee wala bu koor ñëwee ñu sawar ki dégg waye bu koor gi jeexee ñu xam nga lool bo waxu ñu positif bo xam par période lay doon mom <laughs> da wara sax bi sidqin fil ukhuwat kon loolu moy lo xam moy doxu doxub gaa yu baax <coughs> nga xam mom waxna fi batay fii ne <coughs> dox bobu dégg nga mën la ñàkk ndax nun danoo am fun jóge di dox ba agsi fii ci adduna bii nii adduna bii du sunu jubluwaay waaw danoo war a delluwaat itam boo ko xamee yaa ngi cib dox boo ko xamut yaa ngi cib dox inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uuna kon dañoo war a dellu dégg nga inna ila rabbika ruj'a manam dox bek delu bi lolou mom lo barna ci alquran yalla sun borom wax na ko ci alquran ba tay ngok nga xamne kon ndax sun borom bam nu sakke <clears throat> amna fum nu bayyi nu def fa ab dir te ñewagun fi boba moy alamul arwah ndax netal nañ ci alquran ne masna dajale ruh yep ne len alastu bi rabbikum qalu bala ñoom ñëpp ñu nangu kon am na fu jaaroon nu nekk foofe ba sunu ñëw fii jot nu indi nu fii fii nag sëñ Tuubaa dara wax ne mooy bitim réew maanaam fii du réew mi fi ne du jubluwaay bi itam nga xam ne kon suñu yitti mooy war a delluwaat nag ci réew ma jafe-jafe mooy fi ne tey fii ni nga fi nekkee rek mooy mooy mooy firndeel fi ne na ngay delloo boo fi nekkee da am di wër nii di xool di lijjanti ba mbir mi jeex sa sa nekk fi jeex do ag mom ci dekk bo mom fenen lañ lay yobbu moy fiñ wax jeexal na mak sawara yoy mom <laughs> foofu ngay delu mom faaw nga delu moom waaye fa ngay delu fofu moma taxol innaka kadihun ila rabbika kadhan ana faaw nga delu sa borom way fa ngay fekk sa borom fofu moy jafé jé <laughs> ndax bo démé jeexal na may tam fofu xam nga mom delu nga fofu delu nga ci suñu borom way fa nga ko fekk xam nga fofu mom teraa nga ku ñi teral duñ la duñ la duggal fofé mom waaw mom moom yalla yàlla ci bërepp bu mel non mom jahannam mom señ bi manam da melne lelek boy jangal quran ba ba gis ay sun borom wax ak ki da nga japp ne ma li mom da mel nit ñi ci dañu dessé xam nak lan moy sawara ci bom mom sawara mom da melne wala bo xel yi da dal ni ko sepp daat waxe bom ñu fatte way sawara señ mom mom señ bi man setal sawara yi xew ci aduna bi rek sans degré mbana yi ñuy togg ni nga xamne mom xam <laughs> do ma do ma do yam ful la ñom boole mbindeef yi ñu fi nekkal ci kaw suuf moom dañuy jàpp di rey rek mu ko def di ay <laughs> <laughs> nag yi xam nga nag yi ñoo bokk borom nag ñoom <laughs> waaye dañuy def ay xéwal bu ko dee taal suñuy mbana de am boo xam ne ba mu bax ñu dugal leen ci di dakk imagine na yow fi ne tey boo xasee jóge ci dund gi moom amatul ñëwaat fii ak dem ak dikk moom foo xasee dem sa room jeena ci mbana yooy dañ lay dugal <laughs> te la ca ne mooy doo faatu kullama nadijat juluduhum baddalnaahum juludan xayraha manam bo demé ba ba nga xamné sey nga ba nga xamné war nga jeex ñu défarat la ba nga mel nga melon ñu tamluat la kat di la wëlbeuti ci mbana yoy xam nga lolu lolu señ bi manam ben seconde rek addu dara addu la jëru lolu té man nga fi dundu li gay am lepp man nga ko man nga ci né té do def lu nakar yalla ndax yalla lum la ayé rek wutal la wét gu dagan fi né go xamné man nga ca jaaré ayé na njaalo way way may na nga nga wut soxna dénga aaye na dégg nga jël alal alal alal joo waaye maye na nga liggéey ngir am dara dégg nga lépp lu mu aaye rek <coughs> maye na ca wet ga loo xam ne man ok kon dellu boobu ak dox boobu mooy doxub gaa yàlla yi nag waaw doxub gaa yàlla yi mooy loolu fi ne tey fi ñu wuuteeg nag fuq yenn fuqahaw yi boog du ma wax fuqahaw yëpp mooy daam ñoo xam ne charia danañ ko jëfandikoo sax waaye dañuy fex ba lijjën seen tay rek adduna bi daal lañ fi mën a dund rek dund gu jag fekk sharia du loolu kese sharia googu wet ci la waaye nag des ca war a jaare itam dem ca suñu borom tabaraka wa taala wa man yaxruj min baytihi muhajiran ila llaahi xam nga waxul muhajir ila madina al munawara wala yu dama noonu muhajiran <coughs> ila llaahi wa rasulihi kon hijra ila llaahi dégg nga loolu ci lislaam la bokk mooy dox bii gaa yi dox mooy doxub góor yàlla yi mooy doxub murid yi itam hijra ila dengar ah. afa xasibtumu annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turjauna ah dellu bi mom da mënta ñakkom faaw nga delu mom de nga inna ila rabbika rujaa ni ko sun borom tabaarak wa taala waxe nga xam kon delu boobu ak dox bobu da mënta ñàkk faaw nga delu mom mu neex la da nga delu mu naqar da nga delu man nga fe nek ab dir nak di jaay ak njàmbaar ak nekk sa bopp doo lijjanti kenn da nga di jaay dëgër bopp waaye wala fi dañ daa ne sàcc bu raw da nga jëru yàq seen raw ah bis dana ñëw sëñ bi nga faatu boo faatoo moom fa ngay dem lu mën a xew moom foofu ay malaayka nga fay nga fay dajal moom xam nga malaayka moom mënoo koo jaay benn affaire moom <laughs> ba ba ba mën ko ah, mënoo ko mënoo ko mënoo ko ah, mënoo ko jaar ci genn wet moom malaaka moom mooy ko xam nga fi nga nga nga te faa dund ak lu jege ne da ngay rek ni nga xam ne boo tëddee ci guddi gi da ngay nelaw nekkatoo fi léeg-léeg ngay gis yeneen i mbir ba jàpp ne fi lool loolu dëgg la ne da ngay nekk gént goo xam ne nga jàpp ne dëgg la nekk sa digg-dëgg waaye boo yeewoo xam ne lee du woon dëgg adduna si mel noonu la mel fi ne boo faatoo ci nga yëg na ndekete fii du dund fi ne suñu borom fii sax melalu ko fi ak dund dëgg-dëgg dund mooy wa innal akhirata dum wa lahiyal hayawan hayawan deug deug moy ak dund moy deug deug dund lol nak al akhirah la bo yewo fofé nak te dé mom non rek da ngay gëmmé fi rek yeewoo fé gis sa bop ci benen aduna bo xam bokut ak bi dara ngay ak yeneen mbindef yu bokut ak yi fi nekkon yow la nga defon sa xel japp ne buma démé dal dina jalla bu demee moom bi gis señ bi rek mu jàllale mom xam nga loolu yow yaa ko def sa xel waaye mën ngaa dem fekk fa benn réalité boo xam ne bokkut ak <laughs> beneen waaqe boo xam ne bokkut ak yow loolu bii nga jàppoon <laughs> xam loolu lépp mën a moo tax dox bii mënta ñàkk murit cib dox la ne murit mooy koo xam ne tey daa nekk julit ba noppi doog a doon murit xam nga yow bi ngay jébbalu si da doon jullit ba noppi kon daa am leneen loo xam ne jullit ñi ñoom ëgguñ ca te nga war ca àgg mooy dox bi doxum góor yàlla bi doxum góor yàlla yi <coughs> dox boobu mën la ñàkk faw murit moom day góorgóorlu moom yàlla rek ñor ko dégg nga mboolem loo xam ne amalu ko njariñ mënu ko tegg fi di di jihaad bakkanam dégg nga di wut yàlla ci lépp tey jëfe kem kàttanam ndigal yi tere yëpp di dund comme nii nu ko waxee li léegi te suñ borom <clears throat> xamal nanu ne tey yow jéego boo dox mu dox jéego bu ko ëpp wut si la waaw wax na ne man taqarraba ana inda zanni abdi bi mooy xadis bi buxaari nat léegi muslim yëpp mooy xadis bu wér muttafaqa alayhi ala sixatihi te mooy suñu borom wax ne ana inda zanni abdi bi wa ana maahu ida dakarani fa in dakarani fi nafsihi dakartuhu fi nafsi wa in dakarani fi mala in dakartuhu fi mala in xayrin minhum nee maa ngi ànd ak yow noo noo doxee rek moo fekk si la fi ne suñu borom dañuy wax ne boo bëggee xam fi nga toll ci moom yow xoolal fi mu toll ci yow rek boo fàttali boo dee fàttali ko yàlla di ko tudd di def zikr nee na mu yow kese yaa yaa toog di def loolu xamal ne man ci sama jëmm ji sell ji maa ngi lay fàttaliku itam maa ngi lay tudd nee na boo ko defee ci biir mbooloo itam ma ànd ak mbooloo mu gën mi nga nekkal di la tudd ndax moom malayka yaag al malawul ala lay lay ñoom la koy àndal di la fàttaliku dégg nga te loolu nag sëñ bi dinaa wax ne xam nga li su yonti wax ne suñu borom la wax na xadis boo xam ne am na wax waaye jàpp nañ ne jag na mooy li wax ne ana jaliisu man dakkarani wax ju rëy ngi noonu mooy suñu borom boo toogee di ko tudd rek fi ne di tudd yàlla xamal ne mi ngi jataayoo yow ana jalisu man dakarani loolu moom lii xadis bu wér bi nga xam ne amul si koom gën na koo firndeel te mooy wa ana maahu ida dakarani ana maahu ida dakarani loolu mooy jalisu suman dakarani rek loolu na sëñ bi lu ama am solo la danaa ko misaal léeg ci lu bari mooy fi kenn ku ne am nga ñëw fonk ñoo xam ne boo sañoon ñu lay fàttaliku te seenu fàttaliku la fi ne daa am njariñ fi ñi nga xam ne ñoo nekk fii te wala monsieur Abdourahmane da nga naa fi lan ne rek te ñëpp ay am ñoo xam ne fi ne sëñ Abdou ak mbaaxam ak sellam buñ la nee tey sëñ Abdou Rahman kat mi ngi lay fàttaliku di la tudd loolu yow mbégte mu rëy lay def sa xel moom ak sa xol da ngay moom loolu sax dana tax nga daal di góorgóorluwaat fi ne ndax jàppoon nga ne yow mun xamul la wala boog xelam nekkul ci waaye mi ngi lay tudd di la fàttaliku loolu day rëy ci yow fi mu ne loolu buñ la newoon tey borom daarul moti ah ma nga xam ne kat moom mooy mooy mooy sëriñu waa daarul moti gépp moom it noonu la la fonk fi ne mi ngi lay baye xel de nga ba dila tudd xam nga loolu de yow da ngay gëna sawar <laughs> sa sa mbégte day gëna fi ne bu ñu leen sëñ bu mag bi nak Cheikh amadou Bamba mi nga xam mom moy serigne sëriñu tarixa bépp moom noonu la la fonke mi ngi lay tudd xam nga loolu da ngay gëna yow bo man nga faatu sax ngir mbekté mu rey da japp nga ne sëñ bi xamul ya japp nga ne sëñ bi xamul eh amna wa jo xamni dèjà yàlla da ko defal tawfi mu gën mu gën di gis sëñ mag bi bi jaar ci turam askan ko ci ay wajuram itam xam nga mu xamne señ bi xam nako ko waaye koku amna am na xamni manam bu xelam démé ci ci ci ci ci tudd gi ko señ bi tudd rek manam day and ak de nga mbekté mo xadi kër mënu ko misal xam nga señ mag man la yow señ mag la ñuy kër kër lepp fi ne mom la tuddo fi ne bu la xamé loolu saa dara gënu ko kawé mo mo gën aduna ak li ci biram rasulullahi nag sallallahu alayhi wa sallam la nee moom nag fi ne noonu la la fonke fi ne ba mi ngi lay fàttali ko xam nga yow da ngay gën a nag moom sawar ndax nga rasulullahi gaa yi li ñu am lépp ci ko jëlee xam nga <laughs> te nee boo boo booy def salaatu ala nabi boo def rek ab malaayka dana ko jël dem yóbbul ko ko ne ko diw doomi diw moo la moo la defal nag suñu borom bi nga xam nag moo sàkk ñoo ñëpp nag moom xam nga kooku buñ la neewam ana maahu ida dakara nii nga xam ne man ngaa toog fii léegi nekk ak moom maaya xaasa boo xam ni jëli su man dakara ni te nee na boo ma tuddee ma tudd la ida dakara ni fii nafsi dakartuhu fii nafsi boo toogee yow kese fàttaliku ma ma toog man kese ci waxin rek fàttaliku la boo toogee ay ya ànd ak ñeneen mooy ngeen kuréel di jàng xasida ma ànd ak mbooloo mu gën mi mi nga àndal de nga dina fàttaliku wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an boo doxee lu mel ne fukki centimètre wut si wut ma ma dox ab xasab mooy mètre wut la boo doxee mètre nee na ma dox kilomètre wut si la boo dee dox nee na man damay daw moom gàttanu la xam nga kooku sëñ bi <laughs> dox boobu yomb na xam nga <laughs> yàlla neex naa jëflanteel ndax yàlla moom dafa baax te dala ëmmal yërmaane xam nga yonte ba mu waxee ne yàlla sunu borom tabaaraka wa taala ni mu yërëme jaam bi moo raw ni ni jigéen di yërëme doomam ab xare boo xam ne yaakaar naa xare la daa gis jigéen joo xam daa daw ba jël doom ja di ko wër ba gis ko taf ko ci dëndam amulqiyatun haadihi walidaha fi naar ndax jigéen dana jël doom ji di ko tàbbal ci ay xal ñu ne ko xalaatu ko kay te di ko tey Seydina Omar ne ko loolu kay du ko def mukk te di ko tey mu ne ko nag lallaahu arhamu bi ibadihi min al marati bi waladiha min haadihi bi walidiha maa yàlla ni ni mu nu yërëme moo raw ni nu sunu ndey yi yërëme xam nga yow sa wajuru jigéen mu ne newoon fi ne mbirum sa war ak àjjana ëllëg yow moo moo fay moo koy lijjanti <laughs> xam ko kooku yow wa da ngay tëdd nelaw moom da ngay tëdd te dañ nettali yaakaar naa ko xam ne sayidna jamono sayidna Muhammad ja sëñ bi nettali na ko ci silku donte xadis bi am nay wax <coughs> mooy saxaab yi boo xam ni daa sukuraat si daa yàgg lool yonent bi ñëw ànd ak saxaaba yi di ko seet si ñaan def kii lu ñu def rek mënuñoo fexe ba roogi daal génn mu metti lool ba ñëpp yërëm ko mujj nag ñëpp bëgg faatu moom ngir yërëm nañ ko nee na mujj yonent bi ba mbir ma mettee ba metti bañ jaaxle ci daal da laaj leen yaayam xanaa da koo tooñ amul lum ko def ñu laaj yaayam ne ko waaw mbaa dalaa mas a def dara mu leen moom de moom ku baax la xaw ma leen lu ma war a def xanaa leen daal am na mooy mooy soxnaam daal la gënoon a fonk ci man da koo jëloon teg ko sama kaw yonente bi ne ko yow koy wax nga mbir mi loolu kay moom moo moo waral mm, waa ji nga jafe-jafe bii dal ko ci ci faatu gi daal wax yaay ja ne ko ginnaaw nii la demee te moom day daa nar a lakk sawara rek nan ko lakk nan taal fii ab taal rek lakk ko daa tàmbale wut mat ñu tàmbale taal yaay ji xam nga moom bi nga xamee dem na ba gis ñu nar lakk doom ji mu ne yonent bi déet bu loolu naree am man jégal naa ko man kay yéen a topp ma ko dara buñ ko naree lakk ba muy wax ne jégal naa ko rek la la ruugay dog waaw moom yaay ji mu xam nga fi ne moom doom ji lu mën a xew rek ak lu doom ji mën a def fi ne bëggut maanaam ñoom ñu lakk ko mi nga loolu nag ñun suñu borom dafa yërëme moo moo moo raw loolu moo tax dox boobu daal mooy doxub gaa yi <coughs> nga xam ne moom ña cay dox ñoo gën a noppalu ci kaw suuf nag waaw ndax mbiri adduna yi doon seen yitti dara du leen xajamal itam ci dund gu neex la ñuy doon dund gu dund xol goo xam ne itam kenn mënu koo misaal ndax mbiri adduna du doon seen yitti yàlla rek moom mooy doon seen yitti adduna loo ci xëccoog ñoom mën nañ la ko bàyyee donte nag danañ liggéey ndax seen ñaqu bopp lañuy dunde ak lu lew duñ jëfëndiko mukk lu haram mbaa lu amum lënt yalla yalla boole ca muri yooye nga xam ne ñooy muri saadaal insha allahu taala bii di ñëw nu gën a wéy ci ci foofu nu tolloon bu amee benn laaj wala ñaar rek nu mottale ko bismillah aleykum salaam waaw. maam damay laaj maam maam xabru yi maam jëmi xaalis ñi xaalis ñi koy sànni ndax daa doon lu war wala lu mënta ñàkk vraiment gis na ñoo xam ne boo duggee ci barab boo ziyaarewul sax dañuy jàpp ni maam <laughs> loo xam ne damay damay laaj ba xam daa daa doon lu mënta ñàkk wala ndax yonent bi ànd na ci wala maam ndax suñu mag bi daana d'accord ci ñu jël ay xaalis di sànni ci barab yi yow ba tey tamit julli gi ñuy julli ci biir barab yi tamit loolu nekk waaw. waaw sëñ bi ñaari laaj yi laaj benn bi mooy xaalis bi ñuy sànni ci xabru yi xaalis boobu de du force du lu du lu kenn waral itam du lu mënta ñàkk itam du luñ digle itam ka koy def ci coobaree boppam la ko defee te kenn diggalu ko ko itam la nga xam ne mooy cosaan la itam mooy nit ki cofeel gu mu am ci ki ki tëdd fii rek nga xam ne bu ko gisoon jox ko addiya addiya jooju dafa teg léegi sax dañ ko wutal ay kees xam nga nga xam ne ci biir kees nga koy def te kees googu tey bu dee bu dee masal mën naa ko misaal ci jumaay Touba kees googu ngay gis fi ne ñu xaalis yooyu nga fay dëgal bari na lu muy doxal ci ay kër fi ci biir bari na kër yoo gis ñu ami dépense di wéy ci xaalis boobee dañ leen dundale ak kuraay jumaa yu ñuy fay ak yu ni demee moo tax kooka li muy jox fi ne Sëñ Tuubaa la ko jox léegi nag koo xam ne tey boo joxewut fi ne tey mu bëgg laa kii kooku moom mooy ka xamul dara moom loolu moom yooyu maanaam addiyee sax kenn da ci forcé kenn moom asalan addiyee ci moom sëñ Tuubaa bind na lettre boo xam ne mi mi ngi ci almurid yi bii ñu jàng yaakaar naa danañ ci àgg wala jàng nañ ko wax borom daal moo ne ko nañu wax ñëpp ne képp koo xam ni am nga bor sax bul indi addiya man sëñ Tuubaa dara wax ne man damaa xisaab sama bopp ba noppi ba tax nag addiya moom xam nga luy dolli cofeel la loo xam nit kee koy coobarew la waaye du ko loo xam ne sëñ bee koy laaj wala mu koy teg kenn ba tax na sëñ bi daa ne boo amee bor sax yow li jënd sa bor yooyu ba noppi waaye bul indi addiya li feeg tàggali koog bor yi kon noonu la demee du loo xam dañ ci for seen maanaam yow fi ne man nag loolu lii nga wax man seetlu ma ko fii moom dafii daa gis ñi may duggandool siyaar ñu ci bari duñ teg dara moom ca barab ba <laughs> ajjuma ji buñ jaaree fee daanaka ñi fay teg dara ñu néew lañ daanaka te kenn leen wax dara moom gisuma kuy toog di mu leen xool benn bët ci ne yow kat joxe woo tegoo dara ci ci ci xabar bi loolu moom lu ma ko wax de xëy na nag mën naa mu am ci ay bërëb ay loolu man seetlu ma ko fii ñaareel bi mooy mooy julli gi njulli ci xabar bi waa julli gi ñu julli ci xabar moom bërëb bi bu fekkee ne yow woo xabru bi julli ci dara nekku ci loolu ixtilaaf la nag suñu digg ak yenn gaa yu yenn gaa yi yaakaar naa man defal naa ci gëstu boo xam ne xëy na am nañu ko am mooy seetlu naa ne fo mboole mazahib yëpp ba ñu biir armeel yi ci boppam bu dul ci diggante xabru yi bu dee bërëb boo xam ne benn xabru nekku fa te jënd loo ak xabru rawatina sax te loolu sax am na ñoo xam ne bañ ñu ko waaye bu dee bërëb boo xam ne dara nekku fa rek julli fa sax loolu dara nekku ci baax na julli gi baax na am na xadis booy wax ne maqaabir ak mawaatinil ibile gi demoon xadis boobu dafa am sikk moo tax fuqaa yi jëfandikoo wuñ ko yu bari bokk kon julli ci bërëb boo xam ne jën loo wax xabru bi loolu dara nekku ci dara nekku ci madinal munawara rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi ne boo demee ci biir jàkka ja la ne boo am ñoo xam ne dañuy nekk ci kanamam di julli am ñu nekk ko gi am ñu ko féete gi am ñu féete wet gi te loolu ci alfuqahaw saba ci la dale woon ci jamono taabion taabiin ñoom saidul ci taabion yi sax saidul musayib ñoom ak ñooñu kon maa ca lañ dugaloon xabaru bi yonent bi ci biir jàkka ji laa bëgg a wax jamono yooyu lañ ko dugal kon loolu am na ñu koy réyal di wax ni di ci inday xadis ku mel ne Ibnu Taymiya masan Ibnu Taymiya indi na ci xadis yu bari waaye xadis yi muy wax bokkut ak dara li mu bëgg a xaraamal xam nga Ibnu Taymiya day wax ne boo ko déggul mën na laa juumloo da lay wax ne dégg nga julli ci bërëb boo xam dafa am xabru dafa xaraam <clears throat> nga ne ko yow luy sa tegtal mu ne la kat yonent bi mu wax ne laa tushaddu rihaalu illa ila salaasati masajida masjidi hada wal masjidi xaraam wal masjid baytul muqaddas maanaam laa tushaddu rihaal illa ila salaasati masajida loolu bokkut ak dara dégg nga ziyaaratu xabru wala julli ci bërëb bu am xabru ñaar yooyu bokkuñu lee ci ay jàkka lay wax yi nga xam ne tey ñoo jar jug mooy ñetti jàkk yi ba tax na borom xam-xam yi dañoo xam ne boo amoon yéenee julli ci jàkk sax te tax di doon ne ñetti jàkk ya la jàkk joo njëkk jot rek mën nga faa julli xam dégg nga nazar bi daal daal nay mat seetlu nga ne bu kon xadis boobu mënees cee tegtalu ba indi lu xaraamal julli ci bërëb boo xam ne am na jàkk wala mu wax la ne la yonent bi mu wax ne laa tattaxidu qabri xaw ma lan wasanan am na xadis bi wax loolu wala iidan xadis yooyu yëpp laa tattaxidu qabri da nga am iidan ak wasanan yu'badu min baadi loolu lépp lenn lu ci tegtale maanaam xaraamal li mu bëgg xaraamal amu ci moo tax nu mu wuuteeg ñoom teewul nag noonu bu dee noonu suñu bërëb bii moom xëy na nag maanaam yeneen bërëb waaye bu dee masalan Touba jëmmi fa nga xam ne fa la xabree ne dañ ko teqale jumaa ji moom bokkuñu dara maanaam fa ngay jullee benn bërëb nekku fa ci bërëb yi ñu siyaar ba kuy julli foofu nga war dem ca ca bërëb ñu siyaar dafa julli xam nga maanaam jullikaay bi daa nekk nii bërëb yi ñu siyaar nekk na le bu dee fii Daaru Mooti moom daa leer moom Daaru Mooti moom moom jàkk ji daa nekk ne bayti nekk fii léegi nag nun bu amee bu nu amee néew na masalan man maanaam dañuy barkeeloo bërëb ba dem julee ko foofee ca ca bayaal ba nga xam ne tey bukkut ak xabru nga xam ne moo nekk ca peg ca kanam xabru yi loolu daal dara lu ko lu sikk amu ci laa bëgg wax rek wallahu taala ala wa alam mi ngoog kon daa mel ne am na mbokk yoo xam ne dañoo bëgg a jàngal xasida ñoo ngi ñoom ñu ñu may leen ñu jàng rek buñ noppee nag nu doo nu yebbi ko mën na def ñaan aoudu billahi min shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim